xam nga politique moom ak loolu ça n'a rien bañ ni dañ dem bañ ni équipe nationale du Sénégal waxuñu équipe parti bi wala waxuñu équipe partie bi waxuñu équipe parti bi fédération bi xam nga ñoo football bi est-ce que ñoom ñoo bokk fu ñu jëm pourtant am na ñoo xam ne ñu ci boor bi ñu ci boor bi mais doo gis ci ñoom joueurs yi si seen wàllu bopp kenn ku ne am nga foo bokk <laughs> ñun douzième kenn kenn ku ne am na foo bokk. mais dafa am loo xam ni moom lañ bokk te mun ñu ko seddoo muy lii ma sol. Sénégal. mais lii boo ko solee nan lañ lay moo tax ñuy sol lii nga lii joolaa baa ngi ci séeréer baa ngi ci chrétien baa ngi ci diine baa ngi ci parti politique yëpp ngi ci comme lépp Sénégal daf ñu diviser lenn moo ñu boole. te mënuñu ko seddoo muy le drapeau national. est-ce qu'il y a une si am na. am na dans le la vie lépp fa même seen télévision bi am na ñoo xam ne des fois dañuy jaar duñ jaar fi ñu war a jaar te dañ koy gérer dañuy waxtaan mais dañuy lancé un appel encore une fois que suñu slogan bi mu nekk lu ñuy dund xam nga slogan bi ngeen lan la Sénégal d'abord Sénégal d'abord mooy lan mooy balaa lépp. Sénégal Sénégal moom la ñuy jiital ci lépp la ñuy jiital ci lépp. loolu moo ñu may tey force bi ñu nekk. merci moo ñu may tey notoriété bi ñu am ci monde bi. ba FIFA du ñu nommé meilleur supporter au monde ñu ngi jongante ak ay Argentine di ko jongante ak ay Japon te loolu moo ñu may tey équipe bi nekk Espagne bind ministre premier ministre ni ko damaa bëgg waa douzième gaynde ñoo set lettre ñu ñëw fii ci Espagne wan si espagnol yi lan mooy esprit douzième gaynde merci